bi mu ko bindloo moom sallallahu alayhi wa sallam ali mu bind bismillahi rahmani rahim suhayli ne ko dindil xamunu rahmaan bindal bismika allahuma ñu bind bismika allahuma daal di bind hada ma qaada muhammadun rasulullahi suhayli bna amr suhayli ne ko dindil muhammadun rasulullahi xamuñu ko bu nu nangu woon ni yow yaay rasulullah du nu taxaw fii di bindanteeg ak yow ak déggoo yonent bi ne aliin far ko aliin waat ni du ko far xalaatu la far muhammadu rasulullahi du ko far yonent bi ni ko won ma ko teg ci sama baaraam ma far ko seydina muhammad niñ ko xamee ummi yu la mun du jàng du liir mënta bind mooy an nabiyu al ummi alin won teg ci baaraamam mu far ko mu far rasulullahi ja ñu bind hada ma ahada alayhi muhammad ibni abd ibnu abdil ibnu abdullah suhayl ibn amr lii la Muhammad ibn Abdullah dëppoo ak Suhayl daldi dini Muhammadu rasulullahi joojee ñu bindoon ñu ne ko ay ñu yeggale seeni bunuut sart yi ñu déggoo ñu tàmbali di ko bind bokk na ca ren moom du ngeen dugg màkka dangeen di dellu ba déwén Muhammad ni waaw bokk na ca fii ak fukki at dootuñu fi xeex diggante jullit yi ak yéefar yi xeex dootu fi am diirab fukki at Muhammad ni baax na bokk na ca képp koo xam ni bëgg naa farag yéen waa Xurays waa Màkka na farag yéen képp koo xam ni bëgg naa farag Muhammad sallallahu alayhi wa jullit yi na farek ñoom Muhammad ni waaw bokk na ca déggoo ga koo xam ni jóge na Madina ci jullit yi dellu si Màkka da ngeen ko fi bàyyi Muhammad ni waaw képp koo xam ni jóge na Màkka ñëw Madina te du ci ay ndigali ay kilifaam da ngeen nu koy delloo sil Muhammad ni waaw saxaaba yi ni déet mukk loolu duñ ko nangu luy loolu sart yi na yem Muhammad ni leen baax Omar ibn Xattaab ca xadar ba ca tàngaay wa ñëw na ci yonent bi ni ko xanaa nun nekkuñu ci dëgg mu ne ko ax xanaa ñoom nekkuñu ci ay neen mu ne ko ax li ma naqbalu hadi daniya waaw doyadi gii nag lu tax nuy nangu doyadi gii ci sunu diine ji nag muhammad ni ko man maay rasulullah man mi la yàlla yónni te yàlla bàyyiwu ma de wal wat na ni dana ma wallu te li may defit defuma ko ci sama coobare moom yàlla moo ma koy digal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa mu ne ko li may def sunu borom ma ko digal te bàyyiwu ma mu dem ci Aboubacar wax ko li mu wax Muhammad li ma naqbalu hadihi daniya fii diinina doyadi gi giinu nangul ci suur diini ji lu ko waral Aboubacar ni ko aljim garza kii toppal ci gannaawam rek melal ci moom ni ak teg wala dëgal li ñu takk ci ay fas mën ci aw fas mu ne ñàpp ci kaw mooy wax ñu nu arab la mooy toppal ndigalam rek bu ko moy lu mu la digal defal lu mu la tere bàyyi Omar dem toog aku tàngooram lu bari ci saxaaba yi loolu yëngal na leen waaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu sàrt yi ndax lu ko sunu boroom xamal te xamalu ko ñu ci des mu digal leen ne leen dem leen saxaaba yi haju leen te leen te ñëw ñu dem saxaaba yi ñëpp ñu ci bëri boog daal di am di diital yëf yi diis ci ñoom ba xamul lu muy def mu dem ca soxna umma salama àndoon naag moom ni ko halakal muslimun jullit yi alku nañu mu ni ko déedéet lu tax mu ni digal naa leen ñu bañ mu ni ko déedéet sart yi moo tar sart yi ñu sàkkoo ak ñoom moo metti ci ñoom waaye ni ngay def taxallulal yow sangul watul defal sa hadiyu te war sa gëléem ni leen maa ngi dem ñépp dinañ la topp sallallahu alayhi wa sallam daal jëfe ndigal loolu def noonu daal di ne maa ngi dem ñëpp ñëpp jóg topp ko sallallahu alayhi wa sallam am njàngan yi foofu mu am solo mooy yëpp wara ak kulli azimin imraa li arab yi di wax kilifa koo gis soxnaa nga woon ca gannaawam ànd ak moom cim xel ni soxna si def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ci ñoom xéewal gu baax goo xam ne bu jafe-jafe amee rek te nga miin leen mën a jëflante ak ñoom mën a diisoo ñoom nanga nga diisoo ñoom li ñu lay njëkk wax solution lay doon defal suñ boroom a leen ko dimbalee ndax li taskunu ilayha dañuy dalal nit ñoom dañuy dalal kilifa dañuy dalal góor ba ku ci am koo xam ne and man na ko mat na ko saalixa la mu'mina taqiya boo dee diisoog moom da am xulul da am solution ci li ngay diisoo ak moom mat nañu diisool loolu beneen njàngat la ci biir sallallahu alayhi wa sallam ànd naa ki saxaabaam dëpp na ma nga jëm Madina saxaaba yi ñu bari ci àndoon am ñu tàmbali wax ci suuf waaw ñun ana umra ji ñu diggoon ñun dugg nañ Makka saxa ah ci ne ah ñun de wattu wunu jéem pa gisuñu sax kaaba wax ji tàmbali ju sew ji ci suuf ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ boroom wàcce ay aaya ci yoon wi la wàcce saar wi ñuy wax suuratul fatxi inna fataxnaa laka fatxan mubiinan li yaxfir laka allahu ma taqaddama min danbika wa ma taaxar ba mu dëppee di dellu madina ci la saar woo wàcc ci guddi gi yonent bi xëy na saxaaba yi biig de wàcce nañu ci man aaya ci benn riwaaya bi wàcce nañu ci man saar woo xam ni moo ma gënal àdduna ak li ci biiram daal di koy jàng inna fataxnaa laka fatxan ba saar wi jeex saar woowu di saar woo xam ni li ñuy wax as sakina muy ak dal ñëw na ci ñetti yoon baat boobu di jàngal jullit yi ñi gëm yàlla ni nañuy ànd ak dal ndax dal gi rekk mooy li nga xam ni moo leen dimbali keroog am na fa ko suñ boroom di wax ci biir maa leen fekk maa tax ba ñoom xeexu leen ak xeexu ñoo yéen man maa tax ba yéen xeexu leen ñoom ci gàttal keroog maa leen atte la ma ci jublu mooy wàcc ak dal ci yéen wàcc ak dal ci Muhammad sallallahu alayhi wa ndax jamono ju nekk ak dal di am solution di am ba mu demee ba saar way jeex aaye ba ca mujj mooy nekk ñaar fukkeelu aaya ak juróom-ñeent mooy muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allah ba aaya bi jeex da di ciy wax ay melokaan yoo xam ne Muhammad am na ko ak i saxaabaam melokaan yu dëggu yu wóor yu foor ci ñoom ndax bëgg waxtu woo xame ni ay jafe-jafe am na waxtu woo xame ni ay tar-tar am na te muy nunu neen ñun kese ñu jëfandikoo sunuy xel te bañ a topp suñu xol jëfandikoo ak dal te jëfandikoo safaan ba onf taral du indi njariñ waxtu woo xam ni jamono yëngu na yonent bi sallallahu alayhi wa ci jiite gi mu jiite woon saxaaba yi jiite jullit yi jox leen leçon yooyu wan na leen ni leen waxtu wu jamono yëngoo la cay xolool lay solution ba lay indi mooy ak dal ak dal di jiital am xel ak xam-xam te ay maga ngi fi yu yàlla may tànn leen dimbali leen ñu ñoo xam ne fu ñu la joxe xalaat soo ko toppee am ca ndam suñ boroom subhanahu wa taala tagg na Muhammad tagg ay saxaabaam joxe ci ñoom ay misaal yu bari bi ci njëkk rek bu ma teewlu woon bu ñu teewlu woon aaya bi misaal mi feeñ ay waxtu wi day xat yaakaar naa ni waaye bu ñu fi dajewaatee mooy doon mooy doon insha allah te bayaan bi ndax lis ci bëgg a wax lépp ñu mën ko cee wax muy aaya bi di muhammadun rasulullah danaa ci jaar pii mu gaaw ba buñ ci dellu siwaatee wax ci la nga xam ni moo taxoon suñu boroom subhanahu wa taala di ci joxe misaal waaye balay boobu ma yëgle leen ni leen aaya la boo xam ni ku ko mën a mokkal nga mokkal ko li ci nekk ci ay secret yi sunu boroom ak ci mbóotam moom mi ko wàcce rek a ko xam waaye bu ko kenn tay na ko ñëpp mokkal yomb na wàcce nañ ko nañ ko wàcce ci téléphone yi di ko déglu saa su ne walla nga def ko li ñuy wax transcription di ko déglu baat par baat di ko bind ba soo noppee man koo tiim jàngal ko sa mokkal ko benn aaya la ci alxuraan wala ñaar ngoo xam ni mboolem arafi abajada yi mu ngi ci ci la suñ boroom tënk arafi abajada yépp kiy lakk arab lu mu neex neex kiy taalif lu mu mën a taalif alxuraan ji yépp araf yi ko composé takk ko mi ngi ci biir aaya boobu bokk na ci li ñuy baasiinal xale yi bu ñuy soog a tàmbali ci daara ja di leen ko teel jàngal ba ñu xam ko ndax secret yi ci nekk ca daara ja ca gone ya ñuy jàng alxuraan dëgg miim aadam dellu miim deel raa siin waaw lamara liif laam-laam ha ba mu jeex ci ñu koy arabal miim xaa miim daal raa siin waaw laam alif laam laam ha ba mu jeex ndax lan sunu boroom da cee tënk arafi arab yépp arafi alxuraan yépp ba leneen lu nit def ci alxuraan wala lu nit xam-xam bu nit mën a am te jëfandikoo araf yooyu génnoo aaya bi muhammadun rasulullah aaya bi rekk ci la lépp nekk daara yi jàngale alxuraan dëgg dëgg daara joo dem boo fa fekkee gone fëgg ko ne ko muhammadun rasulullah mu ne la walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fa talil la ko ba mu jeex gone gu ndaw egg na ci sax bu ñu la ko baasi na yow ba pare boo amee jot xale bi am jot boo toogee kaamil bi araf wu ne nga ubbi ko teg ci sa baaraam mu tuddal la ko dana la mën a taril walla wàcceel kaamil bi araf par araf mu mel ni suñ borom subhaanahu wa taala dañuy jàngal ci foofu ni ñu gis nga diine ji cosaanam ba cag matam fa mu tàmbalee ba fa mu lépp mi ngi ci Muhammad mii may jàngale ci aaya bi ak i saxaabaam ñoom rekk la woon ni ma tënke lanku arab bi yépp yëpp yëpp yëpp yëpp ci biir arab yi aaya bi ñaar fukki araf yi ak juróom-ñett boo seetloo aaya bi mi ngi ci bu ko kenn tàyyi bu ko kenn tàyyi ku ko mokkalul woon na ko mokkal aw cax la boo ko mokkalee suñ borom moo la koy tekkil ab ëmb la bu suñu borom ëmb mokkal ko nga seet ba ren di déwél kaafi wala saafiya kaafiya aay bi day faj day fekk jële naan la ci nekk lépp waaye muhammadun rasulullah nga jàng ko rek te jubli ci jàng alquran yonent bi nee na araf ne fukk la araf woo tudd fukk la ci ab yool fukk yoo xam ne suñu borom mu koy xayma ñaata ngay am boo jàngee aaya bi yëpp loolu mooy li li ci kaw liñ la mën a daal di leeral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko waaye li ci biir suñ borom subhaanahu wa taala rek moo ko xam muhammadun muhammad rasulullah yi ndawal yàlla la loolu leer na muhammadun rasulullah walladina maahu ñi nga xam ne àndoon nañ ak moom ashiddaau ala al kuffar ñu tar lañu ci yéefar yi waaye ruhamaau baynahum ñu am yërmande lañ ci seen biir taraaxum foo leen fi gis wala taraaxum da nga leen di gis saa su nekk rukkaan ñuy rukkoo su jadan ñuy sujjóot lu bari raaki mooy ko rukkoo saajid mooy ko sujjóot waaye rukkaan su jadan mooy ku koy def lu bari lu bari lu bari suñ borom a leen tagge ne dañuy yaakaar fadlan min allaahi ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala wala yërmandeem wa ridwaanan ak ngërëmam siimaahum seen màndarga yi fii wujuuhihim seen xar kanam yi nga koy gis min athari sujjóot yi ci jeex jeexitalu sujjóot yooyee ñu doon sujjóot sujjóot yooyu ñu doon sujjóot moo tax boroom xam-xam yi taxaw nañ ci wax nañ ci lu bari nee na ñu kuy sujjóotul suñu borom subhaanahu wa taala ku la gis xàmmee la xam ne kii ab jaamukatu yàlla la am na ñu ne ku fanaanee julli bu bët setee nga yendooy leer suñ boroom du la bàyyi taraaxum siimaahum seen màndarga fiiw fii wujuuhim seen xar kanam yi la waaye bul ba bi ci boroom xam-xam yi taxaw lu bari mooy ëllëg yowmal xiyaam bu ñu leen gisee bu ñu la gisee sa kanam gi day leer nañ ndax sujjóot yooyee nga doon sujjóot ci àdduna daalika yi ma la wax mathaluhum fi tawraat mooy seen misaal mi yàlla joxe woon ca téere ba mu wàcce woon ci yonent yàlla Muusa alayhi salaam muy tawraat mu ne waxoon na ko fa ni leen am na xeet wuy ñëw seen gannaaw mu Muhammad tey doon seen njiit nii lañuy mel de wa masaluhum fil injil nag téere ba ca injil téereb injil muy ba yàlla wàcce woon ci yonent yàlla aysa misaal ma fa yàlla joxe ne na ka xeet la woo xam ne dañuy mel ni gàncax buy tàmbali day néew doole lool waaye di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba jariñ ka zarain ni ki gàncax boo xam ni raja génne na shatahu ay caram ay pàqam ya muy àndal ca suuf dugub boo ko sax joo ko jiyee wolli ba mu baax day toj fu ne ab càpp génne fa mu mel nii ba génne ay jitax yu bari set ahu fa azarahu set yooyee ñooy dëgëral cosaan la dimbali ko fastaxlasa ñu dijjal ko fastawa ala suuqi mu dem ba ca kaw dooni jitax yamoo maase jitax yoo xam ne yon jibu zorraar day yéem baykat yëpp experts yi ñu gën a xarala ci mbay bu ñu gisee gàncax googu da leen di yéem gàncax gi nu mu mel nii lu ko war a mel nii da leen di yéem suñ borom nee na ñoom lay yéem waaye moom mi ko def yéemu leen ndax lan li yaxiisa bihimul kuffaar da koo def ngir yéefar yi seen xol yi mu leen ci xëllantoo merloo ci yéefar yi yéefar yi nga xam ni bëgguñoo gis jullit yi ñu ànd bëgguñu leen gis ñu ñu déggoo bëgguñu leen gis ñu ñu màgg ba yàlla ne maa def ñoom déggoo googu ñu déggoo ci seen biir ànd di dëgërante ndax seen xol yi di dakk waada dig na allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu muy borom misaal mu njëkk ñi waa amilu saalihaat yi ñu jëf jëf ju rafet minhum ñoom ñëpp ñoom ñëpp minhum du ñenn ci ñoom ñoom ñëpp min jinsiya jins li bayaan wala li bayaanil jins maxfiratan la leen di njëggal nee na ñoom ñëpp dana leen jéggal wa ajran aziman ak pay gu bari lool pay gu bari la leen dig ci ah seen taxawaay boobee boo ko jàngatee dëgg ñaari misaal yi xat na lool waxtu wi xat na lool waaye njàng la mu yaatu mu ci boroom xam-xam yi wax waaye dafa mel ni da ngay ne rek ñaari misaal la ñaari melokaan rek la bu ci njëkk bi ca tawraat la nekk ñaari bi ci ji la nekk ñu ni ñaari melokaan yépp ci ñoom saxaaba yi la ko yàlla misaal ne leen ñoom Muhammad ak i saxaabaam ñooy mel nii bu ñu dikkee seetlool loolu misaal mu njëkk mi ba mu fi del siwaati insha allah eggale ko nee na waxtu wi yegsi na yàlla na yàlla defal tawfiix ak taysiir jërë ngeen jëf allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim